warnano dellu sant xayrul xadime seyxuna ahmadon fal fil ayne xayrul xadime seyxuna bak dellu sant xayrul xadimi sayxuna ahmadoon bal fil ayni waaw xayrul xadimi sayxuna bàkke war na noo dellu dellu sant xayrul xadime sayxuna ahmadoon fal fil xiine dellu sant xayrul xadime xayrul xadime sayxuna war na noo dellu dellu sant xayrul xadime sayquna ahmadoon fal fil ayne waaw xayrul xadime sayquna bakke baydam ahmadoon may la nu tànnoon moonu yóbbal nga neelu daaru ci diine baydam la nu tànnoon moonu yóbbal waay baydam ahmadoon may la dutaano noonu yóbbal ngëneel yu taaru ci diine ahmadoonu may la dutaano waaw la dutaanoon moonu yóbbal ngëneel taaru ci diine waay sunu waaji Uzi yenu gaya chaba jóg sant yàlla tey def yoone gaaya ca baawan ëru jóg sant yàlla danu daakaas baraay di satuli yóbbal tey ku jóg gis ku dàq kër ga mu miine waaw sot lu yóbbal tey ku jógu gis mu dàq danu daa dox di xëy di gontu ba dem ndar tey ku jógu wat ak gaali sabiine waawaaw ba dem dar tey ku joor wataani bala ay salane won dar ñaw bagale ne fa Jurbel bu seyraay ndawal gi dootu nu buune ñu Mbàkke bala ay sa bu seyraay ndawal gi Mbàkke yile xeewal bu seyraay ndawal gi ta santo wa tëraloo baay faati ak Maymuna waaw te santo tëraloo baay bakke yile may doy na sëpp góor ci bu farloo qad yombal dana defar aw yoon yi la may bu farlo qad yombal dana bak yi la matuloo ki sum ya ak yi la taabal njegenaay taali lampi mbaa ji leen bala ajay la taabal njegenaay taali lampi mbaa bakke deri naari yaa waa ngi toog yaa ngi nu dendal danu tagar gi tay biin biin waaw toogu yaa ngi nu dendal danu dalal tagar gi Mbàkke yaa nu nandal ci koppi weer yi nga feeñal yaa di yaa nu tàggaleeg naan ko ne waaw di mbër yaa nu tàggaleeg bàkke yaa nu miinal kafe ki naan moon ki kaas ataaya kaas ataaya da dox meenu tàggale bakke mbaanik ku ton ni niw wata saamu wara kañ say xubbam ba yal diine waaw samoo wara gën Seexu Bamba leen nanu kañ Seexu Bamba ku yal diine nanu kañ borom jumaa ji nanu kañ Seexu Bamba ku yal diine yaakaari jaam ñi nanu kañ Seexu Bamba ku yal diine bala ëtt buuru Makka yaa puwaan yaa nu ko daafal boole noog saw jigéen uurul nu ko safal wala nak sa jigéen ay sa jërëjëf Seyku Bamba Ahmad Xawsi Seexu Bamba Amada Xawsi Mbàkke dogo nak Mbàkke bala du misikine bala dogo nak nak mbaa kebala ni misikine yanu génne ci ndooli yanu bokkoon fam nu taabal ci néegi am ak تبل yaa nu génne ci néegi ndool ya nu bokkoon tabal ci néegi am ak yaa nu daanu génne ci réer gi réew mi cosaanu abel ci néegi xam ak dee cosaanu yaanu génne ci ku noon bool sunu xol xol def ci jofeel ak miin yaanu génne bool sunu xol xol xol sunu xol danu waan yoon wu mag aw ba yërëm di magal magam ñu rey ak noone aw ba yërëm ndaw ba yërëm ndaw ndaw du dul qibla yaa ngi fi Tuuba Mbàkke doyoon na ko aj du dun siyaare keneen waaw Mbàkke doyoon na ko aj du dun siyaare keneen Mbàkke doyoon na ko aj du dun siyaare keneen magi donganu ko aj dun ci yaare keneen asa yaadu sunu wirdu danu doy ci muqaddam bala adusun ismullahi doy nga nu yeene doy nga nu yeene ismullahi doy nga nu yeene ay doy nga nu yeene nu xembe ca naari yaa nu tere kam mbakki yanu tariqa yanu xembe janaare yanu tariqa bala aysa yanu tariqa yanu te wali li lamuni sangone sangone سيدات خوري بندو عيد كلي واجب واجب كلي واجب واجب بدكن يا وانجي قبل تيفون قبل سبدكن يا وعافين كدن يا أرنين dunjarnene dudukon ya wape ko dunjarnene dunjarnene dudukon ya wape ko dunjarnene dunjarnene dudukon ya soo daan mu jëm xam Mbàkke buddu kon ya soo daan mu jëm di jëntu bu njaloor bi feeñ na ci dugon yow soo daan mu jëm ak neene bala ay subreen di jant bu njaloor bi feeñ ci dunya subraan yaa di baayu miskin yi yow la nu def ndey yaa nu nampal sa ween gën ay weeneel ay subraan gën say maqaama say yëgle kenn ma du ko say karaama say kenn say karaama say kenn ma du ko say karaamaak say jéego kenn du ko seene waaye kenn mënu ko ko xam say karaamaak say jéego kenn du ko seene na ay sabre say maqaam ak sa jagle kenn ma du ko sa karaam ak sa jago kenn du ko seen kenn mënu ko xam waaw yor nga taajul karaame mat nga boroomam xam nga ilmu daraay mbakke mbëri diiwaan te gaale wuñ ci géew bi

waan te gaana walla ci géew bi baraka dana mbere nga fi ne baga yam dax da jann bu ñu rëy ña ta daanoo tudd daana daane yaa am diine yaa fi tax tadaano bake yaa fi da bu ñu rëy nga tadaano tudd daana daane yaa am tanano kuduya tak yapi yadi yalla taqo kuduya udana dore damma kejele yapi nutruya taqo kuduya tak yapi nutruya wet yàlla texe ko kuddu yaw daana ture dam ak ceen kapin nutru yo texe ko kuddu yaw dam ak ceen kapin matu kuddu bu mat bi qawmi di alim alim bi xalil rasuli fardi amin يا المرقد ودعاء للرسول فرد أمين جبار جا خديم الرسول فرد أمين بس المرام بامبا بامبا خديم الرسول فرد أمين waaye mbooloo mi ku nangu ne sëñ Bamba amul morom jugal taxaw ca kaw jugal sëñ Bamba jug leen taxaw ca kaw waay barakallahu doomi Bamba amiin barakallahu doomi Bamba amiin amiin barakallahu doomi Bamba amiin